行。 beneen góor gi nga beneen ay yàlla ay yàlla mën na lu nekk par ki Serigne Touba néew naa un jour viendra di nga nekk comme julli encore <laughs> c'est que amee xelu def lu yow. <laughs> <laughs> pare

ki waral coow laa ngi nii nag ki tax. mais gis. mais le grand. <laughs> Mathie. mais peut-être que c'est fini. gën a ndeel alimi ko jur day ak baay njooñ wàll tàlloot ma ne bàjjen Anta sëy kuy jaara yow kan may maye nii te par force te xaw ko miin nga bës nag ko andal ni wali mu ndaw Wali mu ndaw wali mu ndaw ne waali mu ndaw ko andal ni pambodo bay. i Macam Thiam ak délégation am mi yanguna Macam mak delegasi ak am mi yanguna Macam mak delegasi ak am mi yanguna macam mak delegasi réew yang guna macam mak delegasi réew yang guna macam mak delegasi réew mi wow wow wow wow wow wow wow mon ami ñëw na suñu xew suñu xew waa ji lal jóob déggan mbaay Jordi Mati. Andiamo il Bosnat. Mon Ah, Gaïa. Doudou. Gaïa, t'es bien ah. Deux heures si ya, Eh. Wala moom si yow. nga bandi bandiru nag. waa ki mel الجنة تقي دي لولك Susia estar, kido estar. Que papa mãe estar. Belo. Ah, tá tem um gás wai, o Chum. cafoo cafoo leen ko cafoo leen ko de cafoo leen ko de waaw mais mais cafoo ko barke suñ Bamba guddi ñëpp bëgg nañ dem mais ñëpp luñ dem c'est le ministre ci kontaan Yeah. Eh? naka ñu tey. maa la yónnee numéro. Euh, euh, non non non non. ay jullit ay kilifa nekk bien. maa ngi lay nuyu. Euh, euh, non non non. Thank you. ñu fi dajalee gàmmal ak salaam ñëpp xam nañu ñu Aliou Seck doomu dem si yàlla si coon Seck baax bi suñu guddaay yàlla yàlla yokk leeram waaw léegi man sa lan laa léegi. kaay yaa may jabar. bien. nga réew. non damay dolli si doom la samedi de du yomb de nii lañ defagum nii dañuy def yeneen ak yeneen ak yeneen ay. Allez te may naa Xadiija taal Seydina Ali Seydina Muhammad te ndigal lu koy kon boobu taxaw na dégg nañ ko seede bi mooy ñi fi teew waaye jàkk ji duñ attestation teg ci seen loxo ku góor ki jigéen ki benn bi des ñu tudd can bi ñëpp dégg yëkkati ko joxe ko ñu door a teg na xutba bi ñaan nag li ci des

Cheikh waaw. ci loolu. ma ngi ñëw. maa ngi lay ziar. sama doom jàngi. ñëpp a kontaan ci dëkk.